asalaamaaleykum mbokki internautes yi salaamaaleykum mbokki àdduna wërngal këpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziaraat beneen yoon xam ngeen ne bu ngeen ñu gisee rek indilati leen nañ leen lu am solo euh, tey nag comme ni ñu koy defee saa su ne di leen xoolali fi gën waaye it di leen xoolali ñi gën ndaxte nag jamono dafa yàqu te dañoo toll foo xamante ni nii dafa jot. nit ñi saa su ne euh, ñuy am ci lu ñu sukkandiku waaye tamit di am ci lu ñu jafandu euh, ba tax na tey jii ñu seet si koo xamante ni nii defe naa ni dootuñ ko présenté àdduna muy sëriñ Khadim Dieng Def gis euh, Serigne Khadim Def Guiss nag yaakaar naa ni tey jii suñu waxtaan bi ñu fas yéenee waxtaan mbokki internautes yi yéen àdduna wërngal këpp yéen ñi ñuy seetaan yaakaar naa ni tey jii di ngeen dégg. lu leen yéem waaye it tey di ngeen gisit lu leen yéem euh, laata ñuy def dara dañu koy daal di nuyu ñu bàyyi ko mu nuyook àdduna bu ko defee ñu dugg ci waxtaan bi ci micro bi ngeen àndi ceeg Papi Seydi waaye tamit ñu fas yéene féggoo ak ki nga xam ni mooy kilifa gu mag gi di Serigne Khadim Dieng euh, def gis Serigne Khadim ñoo ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi ziar waa àdduna di leen nuyu di leen ziar. di leen ñaanal suñu borom dafa leen tawféex ak jàmm incha allahu rabbi ay ca kon euh, mu ngi noonu tey jii nag euh, sëriñ xaadim Dieng def gis euh, sëriñ xaadim laata ñuy dugg ci waxtaan wi dañoo bëgg a xam sëriñ Khadim mooy kan ak lan moo waral def gis. ab taalibe la bu jànge fa mu war a jànge dëkk Touba fekk ay waajuram ak i maamam nekkoon ci loolu di ko def. ba agsi fii tey jii mu topp seeni tànk fas yéene koo def fas yéene nag maanaam jaamu ci yàlla te dimbali ci nit ñi maanaam ngir yàlla baatu def gis nag mooy suñu ay maam dañ doon def luñ def suñu borom suturaal ñu ci muy dox ba ñu agsi ci ñun ñu nit suñu borom dinu suturaal duñu wax ne lépp luñ def dana am waaye li ci ëpp suñu borom dinu ci suturaal moo waral ñi ñiy wax ne tuddee def gis googu noonu moo waral def gis googu ba dañuy ñaan nag suñu borom képp koo xamante ni moo ñuy seetaan te am yéene ñëw ci ñun bu ñëwee ci ñun loolu ñuy wax def gis googu na fa fekk bu demee ba nga xamante ni itam naru ko fa fekk itam yàlla ko suñu borom yi mu jëm feneen maanaam mu bañ a agsi ci ñun waaw loolu rek la. ay ca kon mu ngi noonu ba tey euh, ñu dend ak moom fas yéene waxtaan ak moom sëriñ Khadim Dieng def gis euh, Serigne Khadim euh, tey jàngoro yu bari Sénégal àdduna bi surtout ma suñu mbokk moodu moodu yi ñi nekk Amérique Europe ak fu nekk ci àdduna euh, feebar yi sew sewaan yi bari lool sax ci réew mi euh, sëriñ xaadim tey ci yan feebar la nit mën a la nit doon am ba mën a sukkandiku ne bu ma ñëwee ci sëñ xaadim euh, sama jàngoro dana saafaraw maanaam jëmmi jàngoro nga xamante ni tawat la ju nekk si nit hmm, du maanaam nga xam ne feebar la bu ñuy jël garab di ko composé rek muy jot ci nit ki loolu képp kum kii maanaam duñ la duñ la ci laaj fukki daram maanaam jëmmi jàngoor nga xamante ni jàngoor ji dafa dal nit ki amuñ ndigalu laaj ci nit ñaar dërëm bu dul rab amuñ ndigalul laaj ci nit dara bu fekkee soxlay boppam la nag mu yittee boppam nga xam ne yitte la yoo xamante ni moom la amal boppam daan ne sama nit kii kat damay jëflante ak moom wala kayit yi dama ko soxla nag wala nangam lii dama ko bëgg bu boobaa nag loola moom dañ koy wax ne ko lii kat yoon wii lañ ci jaar ak yoon wi ak yoon wi wala ñu xool ko ba gis li nga xamante ni loolu lay bëgg maanaam ñu ñaanal ko ci loolu ndax bari na ñoo xamante ni ñu ngi leen di jox ñuy sangu ñu ne sëriñ bi xamul dara. te fekk na ki leen ko jox sax xam na nit bu biddiiwam wàccee nga xamante ni tabe xam wàcce na ci suuf mënoo ko sangat lu ko jariñ am na nag ñoo xamante ni xëy na suñ borom mën naa bariñ ñu ràññee ko waaye biddiw bu wàcc ci nit. boo ko doon jox muy sangu fii ba suba du gis njariñ faw nga jël ko maanaam yéegalaat ko mu fanaanoo yéere bu weex nga liggéeyal ko la ko koy liggéey ba biddim yi biddiwoom yéegaat nga mën koo jox lu ko jariñ waaye am na ñoo xam ne fi mu toll nii seen loxo dara du ci takk te fekk na du du dara seen biddiw moo wàcc am ñoo xam ne ñu am wërsëg lañ waaye biddiw dafa maanaam dafa am solo ci nit bu yëfam wàccee nag mënoo koo jox lu ko jariñ dana nag dana ne sëriñ bi mu ma jox xamul wala mënut wala nangam nangam te fekk ne ki la koy jox sax lim la jox lu baax la lim la jox lu baax la lu wér la noonu mooy faral mooy waral doo gis loola te fekk ne lu wér la la jox wala lu baax la la jox moo tax looloo tamit lu mat ràññee la ci nit ñi lu mat ràññee la ci sëriñ si lu mat ràññee la maanaam ci àdduna waaw loolu rek moo ci ne. Euh, sëriñ xaadim euh, nga wax loo xam ni man de euh, sama xar kanam gi yaakaar naa ni àdduna bi xàmmee nañ ko ci internet bi ak ci télévision yi sëriñ xaadim tey nga wax ma loo xam ni musuma koo dégg maa ngi koy doog a dégg tey ci yow jëmmi jàngoro bu dalee ci doomu aadama amu leen ndigal laaj ko ci dara sëriñ xaadim comme comme mën nga ñoo tojal loolu jëmmi jàngoro mooy lan jàngoro mooy xeet yii ñuy wax naa xeeti ndoxum si teeg xeeti émérite xeeti maanaam yeneen tawat yi nga xam ne daaneel na nit te du rab di ku ko def mooy li yëfi cosaan di faj te du rab moo koy def comme ci mën a doona amuñ ndigalu laaj ci dara maanaam danañ bu ñëwee danañ ko ko defal li wacc illaahi taala duñ ko si laaj dara waaye bu fekkee nag maanaam yittey boppam la muy yeneen yitte moo xam ne mooy yittey boppam nag bu boobaa sañ nañ ko wax ne ko lii nangam fii lañ koy jaare pour loolu am lii fii lañ koy jaare pour loolu am xam nga am loo xam ne euh, suñ mbokki bitim réew yi ñu ngi koy faral di jàmbat lu bari te dañuy wax naa day nangam day yeex wala day nangam gis nga tubaab yi ñuy jëflanteel am na lu leen di jàpp lu gaaw tubaab moom takk rek moo ko jàpp. li ci ëpp alxuraan nag dana ko jàpp mais li ci ëpp ni ñu ko bëggee mu gaawee loolu takk leef koy defee ci xàncu ngi gis. boo ko defee ci xancum gi gis takk ko ci def ko fa nga ko war a def bu jamono bu jant bi xonge mënut am ñetti fan mukk te teewu mënut ñetti fan mukk te teewu ko na ko bëggee mu defee ko noonu waaye nag loolu képp koo koy defal te day fekk mu doon koo xamante ni jëflante ngeen walla nga xool ko ay mbiram ba nga xamante ni du question day pare nax kooka rek mu dem mu dem ku si jubloo koo xamante ni nit kii da ngeen di jëflante nga war koo nax mu nax la rek ngeen dem seen yoon jërut mu may waaye képp koo xamante ni mi ngi si jublu kii damaa war a liggéey ak moom kat jafe-jafe am ca loola war a sotti bu boobaa bu ñu si jubloo danañ ko si ñaanal suñu borom ba suñu borom ci man nag damay wax ne ñaan ku koy def da ñaan rek yàlla gis nga kii ñaan yàlla maanaam dafay toroxlu toog yor kurusam fas yéene ñaan suñu borom moom mi toroxlu nag doonul koo xamante ni day day forcé li muy ñaan. day forcer li muy ñaan di di di di maa moom lii dama ko jël kenn moomul ñaan maanaam li nga ñaan da bañ ba ñëwu ci nit ki ne ko ñaanal ma mm-hmm. moom moomul li muy ñaan ndax bu ko moomoon da nga naan ko tibbal jox ma mm-hmm. ndegam day day da lay ñaanal nag mm-hmm. moom day toroxlu moom sëriñ bi sëriñ bi daa bu demee ba taawiru rek jot jot lewut ndax taaw wi ku koy def jot lewoo gis nga booy ñaan booy ñaan ñii ñaan ñii ñaan di ko jaarale ci jinne ñooñu danañ ko neexal mu may leen ñiy ñaan di ko jaarale ci alxuraan ak tur yàlla yi danañ toroxlu ñaan suñu borom wakkiirlu ca moom ngir mu may leen waaye nag bu fekkee ne da ngay ñaan da ne dangay ñaan ba pare li nga yor yow da nga koy tibb force day am loolu maanaam ku ko ku la ku la la ku rek maanaam ñeme na musiba ndax yow li ngay ñaan moom da nga ñëw ne ñaanal ma ci nàngam mhm. parce que li may ñaan moom moo ko yàlla moo ko moom yëfi suñu borom nag laay ñaan dama lay ñaanale ci suñu borom jàpp nga ne maa la gën a jege suñu borom ma lay ñaanal suñu borom jàpp nga ne lii may defati maa lu gën a xam ma cay toroxlo pour ñaanal la loolu waaye du question li ngay ñaan yow yaa ko moom boo ko moomoon doo ko doo ko doo ko ñaan da ngay dem tibb rek jox nit ki loolu moo ci nekk moo tax nag nani nani nani nani nani ñun ñëpp nga xam ne suñu borom a ñu boole sëriñ sépp ci réew mi kenn ku ne am na lu la yàlla may kenn ku ci ne la la yàlla may nga yam ca te taxaw ca te jàppale ci nit ñi te yàlla tax waaye bu fekkee da nga ne lii dafa taxaw te loolu moom li ngay ñaan yow xam nga ne ñaanal nga ko nit moom waaye ñaanal nga ko nit doom amut ka dàq àdduna ñaanal nit lii moom ñaanal ko nit suba amut kon du question ne da ngay ñaan loola da ngay forcer li ngay ñaan nan wakkiirlu ci suñu boroom te delluwaat ci moom te xam ne lépp suñu boroom da koo def ci alxuraan lépp nag suñu boroom da koo def ci garab bi ndax gis nga Euh, euh, garab goo gis ak aaya alxuraan ba mu méngool garab goo gis ak aaya alxuraan ba mu méngool léegi nag loolu bu fekkee yàlla dogal ne xamoo ko wala maîtriser woo ko mën naa dogal li ngay ñaan yéex wala li ngay ñaan xaw a am tak-tak waaye yàlla yàlla du nax kenn waaye kenn du ko nax saa boo jaaree fa nga war a jaar xam ne man mii kat ab jaam laa jaam bii dafa am soxla ci moom ci man ñëw ngir ma ñaanal ko ngir yàlla loolu am bu boobaa naa toroxlu sama diggante sama borom ñaan ci loolu suñ borom mën na maa suturaal kat ci loola waaye kenn tibbul kenn demul fekk saako bu mu tenk nga koy tibb loolu rek moo ci nekk. ay ca mu ngi noonu euh, loolu defe naa ni am na solo lool sëñ Xaadim man de euh, xam naa ni mbokki internet yi dinañu ne tey Papis tey moom dalal na gan wallahi ndaxte nag euh, ni ma koy waxee saa su ne rek dañuy fexe di dem di leen tibbalee fi nga xam ni bu ngeen fa demee ñun duñu am gàcce waaye yéen tamit du ngeen am lu ngeen ñu wax loolu lañu ci jublu moo tax tey jii ñu ñëw ci jëmm ji di sëriñ Khadim Dieng def gis sëriñ Khadim ci alxuraan lay fajee wala sëriñ xaadim euh, day faj ci garab day day day maanaam comme li yi di def fétiche comme jinne affaire yooyu wala sëñ xaadim moom ci alxuraan bi rek la yem. xam nga dafa am loo xam ne danañ ko fay fekk ci sunuy maam mooy mbiru jinne luñ fa fekk la maam ñu yoroon ko xam nga li bon mooy wax ku la seetaan ne acam kii li muy wax nii xam naa ko xel la waaye li muy wax dara du ci dëgg waaye ñi nga xamante ni xam nañ te jege xam nañ bu baax li xew loolu mbirum loolu ci suñ maam lañ ko fekk nga xamante ni fanu nekkoon yoroon leneen di ca nekk ñu ñëw fekk ñu fa bàyyiloo ko muy kayaar nga xam ne ku ñoom ñëpp ñu ngi may xam nañ ma mm-hmm. ñu bàyyiloo loolu nekk loolu ci loolu ci lii alxuraan sama wayjur maanaam ñu doon ne ko ci moom kon ñaar yëpp lu ñu xam la dafay fekk nag nit ku nekk ak fa ko war a jaarale boo ko waree jaarale ci lii nga jaarale ko ci loolu boo ko waree jaarale ci leneen nga ko ci leneen waaye lu ñuy defatim lu ñuy xam la lu ñuy xool ba xam ko la ba teg ko ci yoon ba xam ne xel lii kat war naa man a nekk ñu jéem ci ajam waaye ñaar yooyu nga wax noonu bu ci nekk ñi xam xam nañ ne xam nañ ko bu wóor sax. parce que bu dee alxuraan la ca nekk xamuñ lépp waaye xam nañ ca lu bari lu mën a jariñ nit ñi bu fekkee leneen li moom mën naa ne sunu yëfi bopp la waaw sunu yëfu bopp la ndax lu ñu xam la lool ndax li ci nekk daal bari na <laughs> ndax am naa ne am na loo xamante ni danañ ko mën a wax ci biir waaye am na loo xam ne danañ ko téye rek waaw am na loo xam ne danañ ko denc rek maanaam ngir suñ am na ñu xam xel ñi ñuy jëflanteel mm-hmm. am na ñoo xam ne xam nañ ñaari côté yëpp. ndeysaan euh, mi noonu am na ci ñoo xam ni xam nañu ñaari côté yi fi mu daanele euh, waaye Serigne Khadim euh, jamono ji nag mbiru rab problème mu rab dafa sonal lool ndaw ñi. Euh, am ci ñu bari nit ñi ku nekk ngi wax man rab maa ko mën man rab maa koy def nii ba ci ñenn ñi dañ lay wax sax naan la jinne nii la mel jinne ne la la mel euh, sëriñ xaadim euh, côté boobu loo ñu ci wax ndax mbiri jinne yooyu bari na trop coow li bari na ci jinne xam nga man du ma wedd li kenn xam-xamam ndax yàlla sàkk ñëpp te wuutale leen ku ne nag moom lum la xamal ku ne moom lum la jox du ma wax ne kii nii la ko waxee wala kenn la ko waxee waaye jinne du lu yomb jëflanteel doomu aadama ko ëpp doole fuuf nag doomu aadama bu matee lam doon jinne mënu ko yëngal bu jaaree fa war a jaar tey sell jinne mënu koo yëngal tey jii ah, gis nga boo doon tëdd sa tànk bi taq ah, ñam aw ñam nga fexe wala sa tànk bi takk dara rek na ko moytu ndax gis nga ñoom seen bopp gis nga li waral jigéen ñu bari naa seen bopp lay metti gis nga sa tànk bi bu ci dara taqee ñoom buñ ko tegee seen loxo buñ ko tegee seen seen bopp mu sedd wuy méthode bopp woowu ci yow lay ñëw direct daf cee bari loo xam ne ci ñoom dañ koy fajoo ci ñun moo tax ñu bari lu war a moytu gis nga coleen yu gàtt yi ni la jigéen di la gisee di la xem góor di la gisee di la xemmem ñoom noonu la lay gisee xemmem la ci te nag moom euh, ñoom ci seen wàllu bopp gis nga bun na jegee woon nii rek ëllëru tàngaay wi ni wi ñuy dégaase lu tax ngeen mën a composé bu baax parce que maanaam jinne ci sawara lañ ko binde maanaam moom ci boppam bu doon sëy maanaam maanaam da maanaam da ngay gis maanaam am na ci ñoo xamante ni bu ñuy sëy tey yàkkamte da ngay gis sawara wi day day génn moo tax maanaam seen mbir dafa doon lu jafe. dafa doon loo xamante ni lu lu lu xaw a doy la suñ boroom nag képp kum ci may te nga dox nang ci dox rek nang ci xamee ndax ni nu amee xam-xam ñoom lañ loon amee xam-xam bu wér a wér ndax am na ñoo xamante ni am na xam-xam yu bari yoo xamante ni fii ci àdduna ñoom ñoo ko indi ndax ñoo lay wax ne la garab sàngam gii boo ci demee nangam nangam lii def ko nangam nangam lii. maanaam nit ki daan def nii ak daan def nii bari na si xam-xam yoo xamante ni nit ñi dañ ko trouvé ci maanaam ci jinnee ñu moo leen ko xamal. Mm-hmm. ñu bind ko fenn wala ñu kar karmat ko feneen. mais ñoom seeni mbir mm-hmm. maanaam yéeme ne kéemaan la. Mm-hmm. gis nga sunu mag ñi. am na ñoo xamante ni dañoo xaw a euh, sonal tuuti fi mu toll nii boo bëggoon otal gis nga rab. daanaka koo gis ñu mu ne am na ko rek. jàppal ne euh, ay maamam. ñoo ko ñoo ko ñoo ñoo ko ñoo keree lool ndax tey jii boo xëyoon suba rek sotti fii am soow soow moomu danga gis ay ay ay xorondom ba léegi ay ay ay sànqaleñ sànqaleñ yooyu bu yàggee danga fa gis ab si ndax ndax da di jëfandikoo bu si ndax maanaam yàggee maanaam da fa da nga fa gis euh, mbott danga fa da nga mujj gis maanaam jaan noonu la yëf yi demee foo ko yemale da nga fa la <laughs> maanaam foo yemale yëf yëf yi fa lay yem maanaam soow mi ngay tuur gis nga yàlla dafa am fayda am fayda gu toll ne boo demee ba ci bant bii nga jël ko rek ne dama cee bëgg nangam gëm bant bii yàlla fekk la ca gis nga boo fi bàyyee yàlla suñu borom dem ci bant bii wala nga dem ci leneen yàlla dana la cay fekk moo tax ñoo ñu yor loolu jëruñoo contre ndax li ñuy def lu ñu xam la ndax maanaam loolu gis nga boo sampeg tey ji dara fii ci suuf ne yaa ci leneen di ca sotti soow ak di ca def naanam loo bu yàggee léegi nga gis di nga ci bëgg fekk la ci waaye ban conséquence nga ci am nag ëllëg nit dana ñëw tey jii ne la sama doom jii kat nangam ak nangam laa bëgg nga ñaanal ko léegi mu yore milliard waaye ginnaaw suba léegi moom moom dana ko am de waaye ak njabootam jafe-jafe ja ni dëkk kenn du ko xam moo tax yu baree bari di mat di jàngat di mat di saytu di man di dem ci ko wóolu ko yaakaar mu jaarale la ci ci bërëb ba nga war a jaar ba lépp tege ci yoon ndax yàlla ku am fayda la mhm. du nax kenn waaye kenn du ko nax loolu rek moo ci nekk Aïcha kon mi ngi noonu loolu rek moo ci nekk yaakaar naa ni mbokk téléspectateurs yi tey jii nag moom waaw tey yéen a ngi ci émission dëggantaan euh, ndaxte nag Serigne Khadim Dieng ah, def gis mi ngi noonu dégg ngeen yii tegtal euh, yàgg na maa toog ak nag ay kilifa waaye nag lii ma dégg tey ak li ma fi gis vraiment euh, musuma koo gis mën naa ko wax ndaxte nag tey li ma dégg musuma koo dégg ndaxte yu bari tey jii man mii di wax ak yéen gindeegu naa ci donc Serigne xaadim kon tey jii mën nañu ne euh, yi nga xamante ni leer na ci bopp nit ñi ne lépp loo xam ni aw jàngoro la loo xam ni feebar la lu lu dal nit comme lu mel ni ki feebar yi fi ne euh, loole amu leen ci ndigal laaj ci nit waaye nag lépp loo xam ni nit ki moom moo ko yittewoo ngir bëgg ko su ñëwee ci yéen euh, mën ngeen cee ñaan suñu borom ba mu am saafara mbir moomee mu bëgg euh, donc tey jii tamit euh, suñu mbokki internautes yi saa su ne dañ may poser question ci internet bi laajal ñu gaa yi ngay waxal ndax ñun ñi nekk Europe sunuy soxla yëpp mooy suñu digganteeg ñi fi nekk sëriñ xaadim diggante gaa yi coono yi ñu fay daj digganteeg seen tubaab yi ak ñi nga xam ni seen këyit yi dañuy am jafe-jafe këyit dañ fay yàgg lool am ay jafe-jafe di bëgg a sukkandiku ci ñu mel ni yéen ngir ngeen dimbali leen ci sëñ xaadim loolu ndax am ngeen ci saafara. maanaam xeeti tubaab yooyu noonu li la ci waxoon léegi ci kàttanug yàlla buñ ko defee du am ñetti fan. suñ borom daana nu ci suturaale noonu ndax xeetu tubaab moom li ci ëpp takk lañ ko daan def moom boo ko defee suñ borom dana dogal ne li nga ko soxlaa dana amee noonu ma waxatim ne ñi nga xamante ni dañu maanaam doom da leen a jafe te du rab moo leen ko teg bu ñëwee bu ma leen joxee li ñuy jëfandikoo ci bis bi bala ngaa lekk dara boo teelee ñëw bala ngaa lekk dara nga jëfandikoo ko ci bis bi ci bis bi lu nekk ci sa biir dana la ko wàcculoo ba mu set wecc lu mën a nekk sa biir. dana la ko wàcculoo ba mu set wecc képp ku ma ko mas a jox te amut na nga ne amut maanaam lii may wax nii. ci mbirum doom bii. képp ku ma ko mas jox. te ne maanaam gisoo ko neel amut waaye ku mu ku mu dal te du sax wàllu rab moo la ko teg. boo ñëwee. maanaam dërëm laajul la ko ci. bu la ko rab tegee nag maanaam danañ xool sart ya nga xamante ni moom lañ cay jaar pour loola mu dañ waaw waaye képp koo xam ne jëfandikoo ko ci bis bi boo xëyee suba bala ngaa lekk dara ci suur bi bi suur bi fi nga toog doo fi génn te bilimbaane lu la ba mu génne lu nekk sa biir wala nga dem ko woon ak ba mu set wecc ci bis bi bu seetul ci bis bi boo ko continuer tam noonu la lay def ba nga yëg ne set na wecc bu la defatul dara rek xamal ne maanaam li nga doon soxla suñ borom dogal na ne boo sëyee suñ borom mën naa dogal nga jël est-ce loolu day euh, yaakaar naa ni kon bokk euh, yéen ñii di poser question yi chaque jour euh, mi ngi noonu loolu leer na nañ seen nopp donc kon yéen a ci des ngir ngeen ñëw jëflante ki nga xam ni mooy sëriñ xaadim Dieng boroom def gis sëñ Khadim tey ku bëggoon a ñëw ci yow ci yan bërëb la la mën a fekk. Touba lañ ëpp lu ñuy nekk. Ndakaaroo tam ay léeg-léeg ñu nekk fi rek waaye du bari lool. tuubaa daal lañ ëpp lu ñuy nekk maanaam képp koo xamante ni woo nga nu ci suñu numéro danañ la wax fan lañ fi féeti maanaam bu fekkee ñi ngi ndakaaru ñi ngi ndakaaru bu fekkee ñi eh, ngi ñi ngi tuubaatim ñi ngi tuubaa waaye ñaari bërëb yooyu daal bu fekkee ci Sénégal gii ñaari bërëb yooyu rek la doon bu fekkee waa bitim réew nag ren xëy ne moo xaw a yàq sax programme bi tuuti waaye daaw waa Turki jot nañoo am seen wàllu xëy ne daaw mm, ci at male passé maanaam turki woon ren itam ñu fas yéene woon tànnaan ñetti dëkk yu ñu waroon dem waaye yàlla dogalu ko ndax lii fi xew te nii ñaan yàlla mu teggil fi teggil ko réew mépp te teggil ko àdduna sépp ba ñëpp ku ci ne delluwaat say activité waaw Euh, sëñ xaadim kon tey euh, yan numéro lañ la mën a jotee ndax sëñ xaadim sax laataa ñuy wax ci numéro yi euh, sëñ xaadim dinay faj à distance comme nit koo xam ni gisoo ko ñëwul ci yow mu nekk à distance fi mu nekk mënta ñëw ndax sëñ xaadim dina faj ñooñu. loolu question bi danaa ko delloo waa maanaam loolu question boobu danaa ko delloo waa Thiès waaw maanaam am na ñoo xam ne bi ñuy ñëw ci man bin may woo téléphone ñu nekk bitim réew ma ne ma ne leen fanaan leen ngeen sol yére bu weex ñoom ci seen wàllu bopp ña ngi ko yóbbu ca bërëb boo xamante ni ñëpp dañ woon kii mënut a ci àdduna bi mu xëyee suba ci la yokk dox ay waxam waa Cees ñi ngi may seetaan. waaw ñoom ñi ngi may seetaan. Mm-hmm. maanaam xam nañ loolu moom am na maanaam ki ki ñu ko njëkk a def. Mm-hmm. sax foofu la dëkk. maanaam ki ñu xamante ni moom lañ ko njëkk a def ci kaw suuf. Mm-hmm. moom foofu la dëkk. loolu moo ci nekk. Euh, kon kay loolu nag leer na nañ euh, sëñ Xaadim kon ñu bàyyi la nga joxe numéro yi euh, yan numéro téléphone lañ la mën a jotee pour ku la bëgg a jot. maanaam fii ma fii damay wax ñaari baat ñi nga xamante ni seen awra dafa xaw a gàtt. Uh-huh. su maanaam suñu déggantee maanaam ñu xool ko am na si ñoo xam ne dañ nañ jënd ñam bi bin bëgg mu toll ko ñu jox ma ko. ñu jëfandikoo ko jox leen ko ñu lekk ko fi ñu toog dañuy nelaw dañuy gëmmentu nelaw suñu nelawee bu nu yewoo incha allahu rabbi nan ko bëggee woon suñu borom la leen suturaal mu demee noonu. loolu loolu sëñ xaadim beneen détail la ndaxte nag euh, man du ma ni sax Sénégal waaye suñu mbokki européens yi ak américains yi suñu naat mbokk yi nga xam ne ñooy sénégalais yi nekk bitim réew feebar boobu daf leen a sonal ah ndekete sëñ xaadim it loole daf koy saafara. xam nga lépp xajul ci benn jataay uh-huh. waaye maanaam bari na lu am uh-huh. te yàlla lam doon def ba tey mi ngi koy maye ku ko jaarale fi nga ko war a jaarale uh-huh. suñu borom mën na laa suturaale nga gis ko ni nga ko bëggi yàlla nu yàlla suturaal nag te sàmm ñu maanaam te aar ñu te te te te dimbali ñëpp képp koo xamante ni gis nga ne li ñuy wax amal na la njariñ yàlla na doon njariñ ci yow képp koo xamante ni li ñuy wax dara darape na tuuti ñu ngi la koy jéggulu te xam ne kii wax ab ndonga la koo xamante ni dafa fas yéene dimbali nit ñi te yàlla tax lim am ndigal dana ko def lim amul ndigal dana xaar saa bu amee ndigal dana ko def waaw. Euh, kon euh, ñu joxe numéro téléphone seen xaadim mooy 77 195 98 19 benn numéro boobu képp la. 77 195 98 19. képp koo xamante ni woo nga nu si boo nu si jot tamit da nga jot ki nga xamante ni dana la wax ne la xaaral ndax bépp jaam bu ñu woo nga xam ne yittee tax nga woo ñu bu fekkee danoo jàppoon tamit bu paree danañ la woowaat ndax nag bu fekkee da nga ne da ngay dimbali nit ñi jërut nga leen di jafe bu ko jamono laajee nag ñu xam ne jamono ko laaj ko woote jotoo rek nga xam ne noonu la demee maanaam nga déglu ba boo xamante ni wala ngay insister ba saa bu déggantee incha allahu rabbi bu fekkee say mbir nga bëgg a xam mm-hmm. li nga xam danga li nga bëgg a xam danga xam lépp mm-hmm. bu fekkee itam jëflante gun war a jëflante ak fu mu war a jaare mm-hmm. danañ fexe ba loolu am incha allahu rabbi ñu ngi tàggu ñëpp tey gërëm ñëpp tey sant ñëpp tey ñaanal ñëpp jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ay ca mbokk yi mu ngi noonu tey jii nag euh, gis ngeen defe naa ni yéen a déggal seen bopp ndax olof Ndiaye wax na ko weddi euh, gis bokk ci euh, dégg ngeen kàddu yi fi jip yaakaar naa ni lii ku mu doyul dara dootu la doy mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen baluwaat ak beneen yoon di leen bal ak di ñaan yàlla jëlee fi mbas mi comme ni ko sëñ bi ñaanee di wax ne rek mu ngi noonu sëñ xaadim a ngi nii sëñ xaadim Dieng def gis ubbil na ñëpp ay buntam yéen a ci des. Thiès la voie est libre ngir ñëw ci seen xaadim ngir mu saafara seeni jàngoro mbokk yi lii moo nekkoon seen euh, numéro bi ñu leen amaloon tey àndoon ceeg sëñ xaadim Dieng def gis ngeen ànd ceeg dije Papis ci micro bi euh, Papis Seydi comme ni ko gars yi xamee di leen jox dig daje ci yeneen numéro di leen jaajëfal jaa ngeen jëf.